waaw euh, donc euh, comme ni nga ko waxee euh, ñun bi ñuy financer dañ dafa am ay critères yu ñuy tëral yoo xamante ne ni wax dëgg yàlla donc agrément bi da cee bokk agence de voyage yi nga xamante ne dañuy def âge ak Umra ñoom dañu amul woon loolu ñoom autorisation bi ñu amoon mooy ministère des affaires étrangères mais le ministre vraiment bi mu leen recevoir sensible ci seen cas. donc mu joxe ndigal pour xool ni ñuy def pour joxe ndigal comité bi pour xool ni ñu koy jàppale vraiment ci loolu ñu yóbbu ko ci comité waxtaan ak waa comité comité bi nangul loolu na ki nangu loolu ba tey euh, donc loolu euh, agence yooyu dinañ leen financer ndax kat wax dëgg yàlla ñoom aussi mbir mi sonal na leen ku nekk xam na ne seen activité aussi lépp a taxaw donc dafa bokk ci ñi nga xamante ne nii war nañ mën a bénéficier ci financement bi loolu vraiment le ministre réglé na ko ba tey jii ma lay wax nii euh, donc incha allahu rabi donc dinañ leen jox seen financement ne woon que dafa bëgg fépp fu waay nekk ci Sénégal gox bi fu mu mun di doon comme ni mu koy waxee rek euh, de Dakar maatam Matam euh, de Saint-Louis au Cap Skirring ñëpp jot mais aussi képp koo xamante ne nii dafa nekk ci chaîne de valeur bi euh, nga mën a gis sa bopp ci mbir mi parce que touriste kat su ñëwee dafa am ñu bëri ñi ciy jëriñoo. kon képp koo xamante ne nii day jëriñoo ci tourisme bokk ci ñuy liggéey ci waru tourisme kooku dañ ko ci war a boole looloo tax vraiment ñu boole ñëpp ñi nga xamante ne nii mooy chaîne de valeur bi pour jox leen financement bi comme ni ma la ko la waxee léegi gis nga ko ay dem hôtel ba ay artisan ba ay vendeur d'objet daal sax vraiment ñu boole leen ci ci ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci set touristique